tey jii nag mbokk yi sëriñ Moustapha mbakke ñu gën koo xam ci sëriñ Moustapha Amérique euh, di doom ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom moo dajale woon askan yi nga xam ne ñoo dëkkee ci Darou Khoudoss ak li ko wër ngir fas yéene leen a gindi ci xeeti bouillon yi jafe yi ñuy def ci dundu doomu aadama yi ak wér-gu-yaramu jigéen ñi ak wér-gu-yaramu góor ñi jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy teg doomu aadama yi bi ñu paree nag diglu nañ lenn ci askan wi lii lañ ñu wax ñu teewlu mën a bàyyi ku nekk moom sa wér-gu-yaram rek la ndax buñ nee baaxul man duma ko weddi ndax côté bu nekk essayé naa ko doom du ma jaar si tur yi nag waaye am na si boo xamante ni bu xa bopp xale téeñee boo ko si defee mu dee. suma añee ci jimbo du ma reer te sama lay moom lay fanaanoo ba biir set. bu sa foos feesee boo ko si defee foos ba fer loolu nan lay def si biir. amul benn njëriñ nag dañu koo tàmm rek ci fajaluñu dara lu paase coono rek. bu zone boobu it yëre oo xale bu oos wala mécanicien boo jëlee kuddu def si su ndox mi yére bi day set wecc rocc ko loolu nan lay def si biir. suñuy góor ñi sonn na ñëpp tële nañu amuñu benn jariñ ngir lan saf safali doom loolu xam nga ni baaxul. jimbo ji nag nun xanaa gone yee koy toog fi mu ne waaye nun dawuñu ko toog gejj ju koŋ ak géej ju bër moom lan daa toog ak tamaate njam teel boobu tamit bu sa karaw yu boo jëlee wisti toog tuuti boo ñëwee fekk mu rocci karaw yi moom set xam nga ni loolu nu muy def ci biiru nit ñoo ngi ñaan si barke mu Rasuul yal na nu yàlla dimbali ba xas ko ba nu ko doon nu ko togg. lii lii setal koro baaxul ci biir lii rey téeñ baaxul ci biir bu ñu amee nag leneen lu ko remplacer moo gën waaye baaxul. muy géej gu neex gii teg si bisaabu saf bii ak daqaar ji yooyu. sa ceeb day saf sap neex lool ba ñëpp mën ko lekk te du la wàññi daal. kilifa réew mi moom duñ ko lekk la ñuy lekk moom day wér ñun ñu ñoo si war a jël sañu matuwaay ndax fajuñu ku si feebar yaay faj sa bom kilifa réew moom seen yoon nekk si ndax la ñuy lekk ñoom lu wér gu yaram la leen di jox ñun ñi ñoo war a faj ñu bopp. léegi nag gone yi nag ñooy togg mënalul leen dara xanaa bàyyi di ñu togg la leen neex boo ma nee lekk lekk bu munta lekk ni suur naa. du ma ko jënd mali bi ne eh, bi nekk fi géej bi yéeg bi laaj soble bisab loolu lu mu neexalu sa ci leneen dootu ko neexal te loolu day may wér gu yaram te ñun ñoo ko moom ñoo ko bayal suñu bopp. ndaje mi li ko waral lenn la dañ doon ñaax population bi pour ñu bàyyi bouillon yi ak sa safali yi loolu rek la ndaxte bouillon yi amul xorom ñu bari dañ yaakaar am na xorom mais amul xorom glutamate de sodium moo ci nekk ñu koy wax ajinumutu benn bouillon amu ci xorom du benn nag yëpp a yem ndox meeg kii bi yeeg yëpp yem bon boo ko dee boo boo ko dee lekk lim la njëkk a jox mooy tànk yu metti tànk yu metti la njëkk a jox bu lu joxee tànk yu metti bu paree jo daf la joxul malade bu naan aspartam aspartam mooy gaaw fàtte da gaaw a naax boo ko dee lekk day tëleeloo day joxe day bënn bëñ day joxe goitre ndax amul yodd day joxe insuffisance renal insuffisance rénale mooy ñaari ñebe yi ne ci ndigg li di fóot deret ji bu demee ba nga xam si glutamate sodium daf ko attaqué ba yàq nephron yi ne ci biir yi yi doon filtre dret yi yooyu yi doon fóot dret yi léegi lu ko lu ci des bu bu neri yi bu demee ba nga xam si rein yi mënatu la fóot deret ji jalis ra ngay def te jalis daa metti ñetti yoon la par par par par semaine ah nga nga nga nga nga di ci def séance bu ne 80 000 loolu daa bari li ma leen di digal daal mooy lenn ku ci ku ci mën a ku ci munta am formation bi ngay def sa gejj gu saf-saf waaw gejj gu saf-saf bàyyi bouillon yi saf-safali baaxul feebar rek lay indi politique la woon rek pour ñu pour ñu pour ñu pour nit ñi feebar nit ñi feebar di jënd ordonnance ci tubaab bi lobby ay pak lobby juif yi ñu ñu koy wax ay pak ñoom ñoo ko créé woon alors pour pour di pour lu gën a lu gën a avancer seen industrie ñu gën a am xaalis seen seen gafaka di gën a am xaalis loo ci gis góor ñu bari tëli nañ ah léegi ñu daan ñu daan yónnee boisson énergétique boisson énergétique pour yokk kartan amu fi woon bu ñooy rek ko waral. état état du ci jëm dara état ñoom seen i taxe lañu lañu lañu lañu kii du ci jéem dara industrie yi itam tant ñu ngi sédd seeni milliards par bis duñ ci jëm dara duñ ci jéem dara ñi ci ñi ñi euh, li tax daal usine yi tëj mooy jigéen ñi koy togg buñ ko jëndul weer léegi usine yi tëj. ñu am seen wér-gu-yaram. së xanaa sëriñ si ñaax comme ni sëñ Moustapha def sëñ comme ni sëñ Moustapha def waaw. bu ci sër bu ko sëriñ bi tere bu ci comme ni ko suñu bàkk soxla teeloon tëyif bu ko sëriñ bi tere woon Touba léegi ñëpp ñëpp am jàmm ñëpp am jàmm.